lu Papa Sow la lamb la certes sport de la mais bu lamb tëjee rek lii dana tax ñi tamit seen gisee day rafet bu lamb ubbee ëllëg dina xam ne lii rek quoi dañuy foo mais ñu xam ne lépp fair play la quoi ak defar ah, lii lan la mën eh, a dafa baax bu ñu dajee cent deux cent pour cent bii daa dajee beneen beneen doole la waat quoi dina tax booy ñoom ñëpp benn lañu géejawaay yëpp benn lañu parcelle yëpp benn man li ma jaaxal mooy man waaye yéen déglu man sama sama équipe waaw parcelle Lamsar parcelle géejawaay ndax day weekend ni la demee lan wax gars yi wax waaye yëpp wax ne weekend yëpp day am match quoi incha allah supporter yi waaye jaaxal bi non booy nag yéen di ngeen di seetaane nag leen gañe woon daa leen gañe waat incha allah score bi ñaata lay doon score bi xam naa dina bëri ay cinq deux. ñaata ngeen def ci mystique. Hmm? mystique ah, laa ilaha illallah ah. la ah. ñu leen def ñëpp. sëriñ ni war a essayé ci combat yi maa si yëpp fi lañ ko essayé xool waaw fi lañ ko essayé xool waaw fi ne moom lu mu xat-xat-xat dina dugal ñaar est que yow am nga góor yu mën a dugal ñaar. non day def de. ah grand bi day def grand bi xam nga est-ce que du góoru ah waaw du grand day góoru day góoru waaw day góoru waaw moom neen day dugal góor dugal dara garga day moom nee na kenn du ko dóor dóoraat non loolu amul dañuy ah. Ah, ah waaw waaw waaw ndeysaan gis nga mu ngi noonu lii lii mooy sport lii mooy sport tamit kenn du yoon waaw sa job moo fay dem soirée Ngor Ndiaye géwél yi nga yëpp tamit kenn du yoon tamit kenn dama fay dem mais saa yu fay dem bàyyi jili moom fa yóbbu man xamu fa woon sax ndax fa lay entraîné tout près mosuma ko xam mais bàyyi jili moom fa yóbbu mais tey initiative bi noo ko gisee tey parcelle ak Guédiawaye bu ñu dajee dër bi la keroog gis nañ bi bi bi combat bi mujjee am fils de mu nekk combat mais tey ngeen créé lii ban ban message ngeen ciy jàll. waaw rek mooy sport toujours rek gis nga ne bu ñu bëree ba pare Fils de Balla déplacé ñu seet si ko. sport bi ñun surtout monde lamb dina war a gën a ñemeloo nit ñi milieu bi ndax gaa yi ñoo neen ba xaw ko ragal li ñuy def mooy ñu gën a defar suñu ay image ba nga xam bu ñu proposé match bi rek dama ne lu rafet la nañ ñëw ñu fubal ci yar ak teggin fair play gars yi xam ne ni sport la rek bu jeexee tamit ay doomu nday lañu ay frère lañu ñoo bokk lépp ko waaw. lan ngay wax yeneen gox yi mel ni ak euh, Langsar ak fu nga xamante ne am ngeen fa ay adversaire lii mooy cent pour cent Pikine dañ préparé ñëw jël waa parcelle wala ñu jël Guédiawaye wala ñu jël côté Thiaroye def ko noonu def ko côté bool bool yeeg côté Médina côté yëpp daal bu ñu bàyyi dara quoi ñu xam ne sport bi daal dafa tollu ci gox ak gox gox gox intérêt mbër mi la intérêt promoteur bi la te mbégte amateur bi la mooy mbégte fan club bi lay doon waaw ndax bu nit xawlee ñu ne cent pour cent bi yëpp dugg loolu dafa rafet dafa neex te njëriñu promoteur la de te njëriñu mbër la aussi tamit hmm. Papa Sow fan parce que ñëpp xam nañ ni sa diggante ak Siteu ñu ngi koy xaar Papa ci wàllu wàccaay fan ci toll ak préparation bi waaw ci wàccaay ñu ngi waaj a rek xam naa ne du yàgg dara affaire promotion bi dina commencé incha allahu rabi ñu ngi déglu promoteur bi rek incha allahu rabi mhm. mais xam naa ne daal yàggul dara daal ak mhm. gars yi dinañ sóobu quoi incha allah mhm. combat bi da nga ko njëkkoon jël mu am ndogal boo xamante ni na la ci booy ñëwaat dañuy gisaat beneen Papa Sow ci préparation ak lépp li amoon ah. bu amaatee est Papa Sow dina def ni defoon waaw li amoon manquement la CNG si ay matuwaay boobu ba léegi gis ngeen hmm. la ñaan ñu ngi góorgóorlu daal xam na ne am na daal mhm. yàlla dinañu suturaal bu mu egg si jàmm ak mhm. Papa Sow ak Siteu ban problème la ñu am non mosuñu am problème Siteu suñu rakk la combat bi daal mel ni combat bi yéen ko bëgg est problème am waaw mais lamb ku xam nga sport la rek mhm. ku daanu da ngay rus Papa bu ko bëggee c'est normal mais nag le dernier mot moom yàlla moo yor li yàlla daal moo yor kàddu gu mujj bi yàlla ñu suturaal ma ñu dem si bés ba dañuy ñaan yàlla saison bi ni muy tëjee ni mu ubbee woon neex na mais ni mu tëjee neexawul de. waaw mais nu mu tëjee euh, neuf defet la tëjee ak ah. hmm. waaw na tane na daal. mooy neexul daal tane na waaw. Hmm. te xam nañ six victoire six défaites ak deux cent vingt deux cent vingt huit. victoire six défaites. ak deux cent vingt huit waaw sama combat ak beneen boobu Aliou. Hmm. waaw kon palmarès bi baaxul de. ak fi ñu doon seen tur jàmbaar ak fi ñu ko yaakaar. suñu tur jàmbaar kañ leen ñëw ci làmb. ñun kañ leen ñëw ci làmb. mooy kon sant yàlla rek war nañ gën a liggéeyaat.